toll ci 9h40 waaw mu toll ñu ngi ci 9h40 gis nga dëkk bi doo gis kenn benn benn ngay gis mu ngi profité bi daw di ñibbi borom oto yaa ngi ñibbi ñun ñu xam tamit pour gën a wàcc tamit ñëpp a ngi daw pour ñibbi wax na léegi pour rek ñun euh, ñi tamit dañ ko fonk léegi dem na sama léegi Sénégalais léegi dañ ko tàmm dañoo am ci boobu léegi dana ko sax léegi ñun ñi ñu ngi coono boobu dëgg yàlla ñu ngi yëngu coono yi nga xam ne moom la ñuy dund ci côté boobu kenn desul ñëpp ngi ñibbi waaye mën ñaa ngi def pour balaa vingt heures mu mën laa fekk sa bët nga jakartaa yi ngay gis ak yenn photo particulier ñoom ngay gis ñu ngi nii di dem ñibbi ñoo ngi nii si yoon bi jëm yoon Tivaouane bi jëm am en même temps tamit euh, rond-point ngeen côté police bi wane la nii la koy ñun dundee gis nga gis ngeen barrage yi waaw ku ñëw romb balaa dix vingt heures vingt heures nag ñu xam ne kenn jàll sans wane woo sa autorisation pour nga mën a jàll waaw doon loo xam ne nii wax yàlla woon ne leen ñu ngi respect seen chaise ñi langue waxtaan nga fekk ay ndaw yoo xam ne nii lu mat diis ndaw yoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ñu toog seen buntu kër di waxtaan waaw loo xam ne nii wax dëgg yàlla tegul fenn parce que ku ma li may rek ku mën a toog ci buntu kër jël sa chaise toog di waxtaan war ngaa mën a dugg sa biir kër ah, toog fa waxtaan fa tamit nga des fois des fois nga gis ay mag yu def loolu nga fekk la ñuy jël seen chaise teg seen buntu kër ah, xale yi toog noon ñuy toog ah, di waxtaan wala toog toog noon di waxtaan ci loo xam ne nii war naa mën a ñaan wane leen zone yoonu muusante bi wax dëgg yàlla euh, ci biir koñ yi parce que ñun ci biir dëkk bi lañ doon yem ni di jël parce que ñu nekk ville mi ci biir dëkk yi wax dëgg yàlla respecté nañ mais boo duggee ci biir koñ yi euh, di nga gis ne wax dëgg yàlla euh, loolu des na ñun ñaa ngi génn ñun ñaa ngi toog et puis xale yi tamit ñoo ngi toog di waxtaan def groupe toog di waxtaan nii ci biir koñ bi bu ñu gisee oto prise daw dugg seen dugg ci biir kër yi waaw du wax ni loolu moom wax dëgg yàlla rafetlu ñu ko rafetlu ñu ko zone bi nga xam ne mooy nii jëpp fi ñu tàmbale nii ba ni ngeen di demee yéen ngi dégg coow li tamit en plus que yéen ngi dégg wax yi maanaam wóor na la ñun ñi ñoo ngi toog seen buntu kër yi waaw ñun ñaa ngi toog seen buntu kër bu ñàkk waxtaan mënut a ñàkk tamit ñu dugg seen biir kër toog waxtaan fa parce que ma gis nii nit ku nekk war nga doon sa magu bopp lu may wax rek nit ku nekk war ngaa mën a doon sa médecin bopp parce que tamit da fa fekk da la fa toroxal am na leneen lu ko jaar gis ngeen image ñu leen di wan des fois tamit dañuy toog foo xam ne day lëndëm moo tax yenn image yooyu duñ leen ko mën a wan parce que day lëndëm lool parce que fi ñuy toogee des fois day lëndëm waaw benn benn ngay gis ñuy toog foo xam ne dafa leer xëcc seen seet toog foofu waaw boo xoolee zone bii ba ni ñu duggee muusante ba ci biir koñ koñaat ruq yeeg yëpp euh, foo romb rek mënoo romb trois kër ba quatrième kër nga gis ñu toog wala ñi xam ne ñoom seen bëtt kër toog di lang waxtaan di waxtaan waaw doon surtout secteur bi secteur bi gisuñu kër gooy romb te gisoo ko nit bu toog ci buntu këram secteur bi boo xoolee moo tax coow yi dafa gën bari boo xoolee sax suñu image gis nga ni muy grain parce que dafa lëndëm dafa lëndëm lool acteur yoonu zone Moussate euh, bi ni ñuy respecté wu ñu dëgg yàlla li nga xam ne moom mooy euh, coup de feu bi wu ñu ko dara dara dara wax dëgg yàlla ku ma ko waxoon du ma ko gëm parce que yaakaar moom ni koñ yi mel na nii wala nit ñi tamit euh, toogee nit ñi ci mbedd yi wala ñoo ngi ñoo ngi làngee nii waxtaan ci biir mbedd yi. et puis da nga ciy fekk ay xale yu ndaw wax dëgg yàlla ñu toog boo xoolee foofu mu lëkkaloo fële na foofu yëpp boo xoolee ñun ñaa ngi toog foofu xëcc euh, seen see toog euh, di waxtaan li tax mënuñoo taal ci nit ñi mais parce que am loo xam ne tamit euh, yoon mayuñu parce que waroo taal ci nit ñi di nit ñi nii loolu wax dëgg yàlla bokkul suñu liggéey mais pour xamal leen rek wax dëgg yàlla secteur bi moom bokkul ñi nga xam ne nii respecté nañ coup de feu bi parce que coow yeneen koy dégg yeneen dégg gis nit ñi juróom yeneen gis nit ñi toog seen bunt kër gis ay quinze jeunes yoo xam ne ñu taxaw ay góor ak ay jigéen taxaw fii lang seen waxtaan waaw buntu kër yi ñëpp toog di lang seen waxtaan comme niñ ko centré xam naa tamit gis nga image yi gis ngeen bu baax a baax nit ñi ñaa ngi romb di doxee nit ñaa ngi génn bu baax waaw man daal li jaaxaloon na wax dëgg yàlla ku ma ko waxoon tamit du ma ko gëm parce que tamit euh, liñ doon dugg seen quartier duñu gis kenn ndekete am na yenn quartier yoo xam te boo fa duggee nit ñaa ngi euh, waaw lii euh, rafetlu wax dëgg yàlla jekkul jekkul boo xoolee fii yëpp gis ngeen buntu kër yi jàmba lañ da ngay gis gis ku génn wala nga gis ay gis ku taxaw ci buntu kër am des fois dañ lay seen ak daw dugg bañ ku leen filmer bañ ku leen jël wane na ne zone yu mu sant bi ak li ko wër wax dëgg yàlla ñun ñi def nañoo respecté li nga xam ne mooy protocole gis ngeen nit ñaa ngi taxaw nii am ñoo xam leen wax ñu daw dugg ci lëndëm bi waaw gis ngeen bu baax ni image yi moom ngeen di wan doon loo xam ne wax dëgg yàlla rafetlu ko rafetlu ko daal xoolee suñu tuwaatee ni ñu daje woon euh, euh, lii nga xam ne ñooy am euh, de tenue wala tey boobaa tamit lu ne mun nga ko lay mel du mënuñu laa jéggal ci lii parce que loolu naan loo mënut a doxe ak lu mënut a doon vingt heures war naa la mën a fekk sa kër waaw na la mën a fekk mu doon loo xam ne nii na ko ñi ni di bàyyi xel bu baax a baax respecté yi nga xam ne nii moom mooy sart yi nga xam ne moom lañ teg waaw boo xoolee xool gis ngeen image yi gis ngeen ñi ñaa ngi noonu di dox ñi ñu ngi seen buntu kër yi waaw ñii ñoo ngi taxaw seen balcon loolu moom sax dëgg yàlla kenn mënu koo tere gis ngeen maa ngi noonu di zoom leen gis ngeen ñi ni toog di làqatu gis ngeen image yi parce que damay dox pour rek pour bañ a perte gis ngeen gis ngeen ni ñuy taxawee seen taxaw laa ngi di waxtaan gis nga buñ la séenee weer caméra bi gis nga ñuy daw gis nga gis nga yéen a gisal seen boo gis nga waaw mu doon loo xam ne nii doy na waar trop doy na waar trop parce que lii du ay foo yéen a ko gisandoo seen bopp waaw mu doon affaire bu doy waar zone yoonu yëpp yoonu Moussanti la bi moo jëm euh, ci carrefour bi nga xam ne moom moo jëm ci marché Moussanti avant nga àgg si Makendo foofu doon yoo xam ne nii war nañ mën a jàppale seen bopp doo ne jàppale naa nga ñu jàppale seen bopp dimbal seen bopp parce que tamit euh, jàpp la yóbbu la nga dem tëddi euh, yóbbu la nga dem fanaan ni euh, police am na leneen lu ko jar waaw boobaa teg say fitna sa bopp teg ko say njaboot loolu am na leneen lu ko jar dëgg yàlla doon loo xam ne ni ko ñu ni di bàyyi xel ñu ni bàyyi mooy tax grain yi ngeen koy gis ndax euh, mënoo tax lumière kon nu ma koy waxee rek mais gis ngeen nit ñaa ngi doxe seen soxla foo tourné rek koñ boo tourné nga gis kuy dox preuve koñ boo tourné rek di benn nit ba ñaar nit ñuy dox suñ la gisee fekk ñoo tamit teel nañ la gis dañuy daw laaxatu pour bañ nga jël leen wala ñu dugg fu lëndëm foo xam ne doo leen mën a jël waaw li tax sax dagg mooy image yi pour rien rek mu doon loo xam benn preuve boo xam ne ni euh, dañ leen koy wan lu ñuy créer mbaa leen pour xam ne leen am na ñoo xam ne ni respecté wuñu li xam ne mooy sart yi boo xoolee fii lañuy tàmbali ba ni ñuy demee euh, angalu seen Fallou da ngay gis ñi ñi toog seen buntu kër da ngay gis euh, jeunes yi nekk seen taxaw nii daal ci mbedd bi yor seen téléphone bi manipuler mbaa ñu toog langue waxtaan di waxtaan bu la seenee daw dugg dugg fu lëndëm mbaa ngi daw dugg ci pour bañ nga jël gis nga gis nga kër koog daw tamit gis nga waaw mu loo xam ni gis nga nii nii daal la demee ni eggee rond point angle sëñ Fallou nii daal la demee ñin ñaa ngi si mbedd bi ñin ñaa ngi dox ñin ñaa ngi toog buñ la séenee nga ñëw ñu daw dugg wala buñ la séenee daw dugg fu lëndëm laaxatu mu doon loo xam ne daal jaru ko nit ki moom damay jàpp ni lépp looy def di si laaxatu moom mieux vaut nga bañ koo def moo gën a yàlla waaw gis ngeen image yi ñu demee nii bii moo jëm euh, benn bi moo jëm angal sëñ Fallou jigéen moo jëm angal sëñ Fallou ay magum jëmm xam ne nii ñoo waroon na bañ xale yi mbaa tere ko seen njaboot mais mag ñee koy def mag ñee koy def xale yi gis ko mën a coppi si ñoom di ànd ñoom di def loolu te loolu waroon naa mën a ñàkk lool lool lool lool waroon naa mën a ñàkk parce que boo xoolee image yaa ngi nii tey moom dañoo concentre woon entre fi euh, nga xam moom mooy euh, muusante zone muusante bi tey foofu la ñu demoon jëlee leen image wax dëgg yàlla yenn secteurs yëpp respecté nañ ko mais zone Moussante bi moom wax dëgg yàlla des na des na lool lool lool des na trop parce que foo tourné rek yaa ngi gis nit foo tourné yaa ngi gis ay ñuy toog langue di waxtaan foo tourné yaa ngi gis nit ñi taxaw di wax ak yow des fois damay romb sax di nuyoo ndax damay fekk ay romb ay groupe nit doo mën a ñàkk ba ne romb nuyoo pour xamal ne rek nit ñaa ngi dox nit ñaa ngi seen idée comme niñ ko centré wala niñ ko yëgee ñuy wax nit ñi rek dëgg yàlla na ñëpp toog seen képp ku mën a toog ci buntu kër di langue waxtaan boo toog sa biir kër mën nga faa waxtaan waaw fekkee mënoo ñàkk bañ a toog langue waxtaan ngeen dajaloo mais toog si biir kër gi toog fa waxtaan fa moo gën lii di gis am tey di daw di dàqante ñoom parce que am na leneen lu ko jar ñu ñu loo xel bu baax a baax ñu bàyyi leen ngeen yeggali seetaan seen image yi nga xam ne moom moo ci topp ko fii ba angle Sëñ Fallou waaw tey moom ñoo ngi leen yemal ba rond-point angle Sëñ Fallou foofu la ñu am parce que tey daal zone muusante bi si lañ ko wu pour jël koñ yi dugg ci biir ruq yi pour wan leen ni ñin ñi ngi nii taxaw gis ngeen ñu ñaa ngi taxaw gis ngeen léegi gis daw laaxatu wala ñu gis la tumbu fenn pour a asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd Papa Yoro may gën a xam ci Vieux Ndiaye maa ngi dëkk Thiès euh, xam euh, yaroo Thiès màggee Thiès waaw waaw sant yàlla bu wér ci mbir mi xew bon comme c'est un événement mondial Sénégal nag vraiment ma li may njëkk euh, félicité mooy noo docteurs et professeur professeurs ci wàll médecine maanaam képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu médecine Euh, ñi peuple bi ñu ngi lay njukkal ñu ngi lay euh, félicité di la remercier ba pare euh, tey Sénégal mën nañ ni bokk na ci réew yi la xam ne ci fànn santé il fait partie des pays les plus performants ndax lépp lu ko waral mooy seen xarañ ndax vraiment les cas ñu ngi diminuer de un de ñu ngi traité kon vraiment xel dal na daal. waaw waaw xam nga xam nga Sénégal dafa am loo xam ni. jëluñu woon euh, fa jàngoro bi au sérieux au début donc euh, bu président décrété benn couvre-feu boo xam ni c'est pour euh, protéger la population parce que moom tey mën nañ ni c'est la première personne boo xam ni lépp lu mënti am moom moo ko war a gérer te ni ko gérer tamit man je suis d'accord ànd naa ci en tant que un bon citoyen ndax ku xool gars yi bu ñu toogoon seen kër yi respecter les normes xëy na lii du am mais tamit euh, am na loo xam ne tamit euh, comme comme c'est un début des fois nos force de l'ordre dañ leen di ñaax na leen bon ñii am nu ñuy doxalee ak population bi parce que population bi ils ont des problèmes de déplacement il faut oser le diir parce que quelqu'un qui quitte euh, ville war a dem ci banlieue bi ak nu ñu disposition yu ñu jël mooy car yi manqué ak euh, y a un problème de de de de de, de déplacement ah les gens ne sont pas véhiculés parce que c'est pas un pays où les gens sont véhiculés yooyu dañ ko ci war a sóor ba bañ a dóor kenn waaw bañ a dóor kenn dóor moom euh, nañ nañ nañ def beneen option que door parce que c'est un peuple civilisé les gens sont très corrects boo leen nee toog leen seen kër yi ñu toog fa defe naan daal autant nga dóore il faut gérer la population il faut les mettre dans des voitures les évacuer waaw pour que au moins ñu xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Euh, tu as parfaitement raison euh, euh, crise day am y a une crise euh, économique boo xam ni c'est lié à les activités yoo xam ni amatul ku xam dëgg Sénégal nu mu doon doxee mais néanmoins ni mu ko séddalee de préférence man bu sañoon de pour boo jegoon président di ko conseiller je lui dirais que les zones qui sont qui qui sont ak àll bi zone rural bi ak ñi mu xam ni parce que il a la cartographie Euh, nationale na xool fi la xam ni aide war na fa mën a dem mu njëkkee foofu parce que Sénégal boo xoolee ba ci biir am na zone yoo xam ni euh, ci zone rural bi c'est un peu dur et puis ku xool y a un problème de déplacement boobu amatul te vraiment boo xoolee balaa ville di metti zone yi fa lay njëkk mettee bien vrai que ils ont des greniers mais ils ont pas les capacités et les possibilités de s'en sortir ci crise bi kon na xool couche vulnérable boobu maanaam ñi gën a faible na ko defee par courbe on peut travailler par courbe bu dee circonstances yi mel nii am na mooy zone yi gën a faible ñu njëkkee fa dimbali askan bi dimbali mag ñi et puis ñu ñu renforcer tamit c'est ce qui sont dans les hôpitaux ah ndax tey euh, yàlla def na euh, bon déplacement bi amatul bon euh, y a une petite crise économique donc il faut que mu bàyyi xel ñooñu en plus les détenus c'est ce qui sont dans les maisons d'arrêt qu'on renforce au moins euh, leur leur leur leur alimentation parce que am na bool yu daan dem every time mais comme il y un euh, confinement les gens respectent euh, vraiment li président wax parce que dañu xam ni mooy la couverture sociale c'est un protecteur social donc il faut que lépp maasandoo am couverture social moo tax daal dañ koy ñaan rek mu xoolaat yooyu yëpp ñu essayer ko régler d'une manière boo xam ni incha allahu rabbi d'ici peu de temps on va sortir de cette crise ah de cette crise sanitaire bon nekk ci beneen xam nga quoi le Sénégal comme nu mu nekkee un pays émergent. Thiès 24 ah, di la njukkale ndax heure bii ma taxaw fii ah, bon ah, il faut maa ngi lay sant bu wér xanaa kay dañoo amoon suñu xalaat rek bu ñu joxee ci lépp di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi nit ñi àndandoo nekk benn te li ëpp solo nag mooy kon kon qu'on renforce le corps médical. ñu gën leen a ñaax gën leen a ba pare gunge leen ba pare respecter tamit leen normes mooy que les gens restent chez pour le moment en attendant qu'une politique soit définie pour aider les gens ak par rapport ak tamit weeru koor bii di ñëw ñuy profitoo tamit di ñaan président bon un décret c'est un décret mais de comme c'est à 16 heures que les marché euh, arrêtent on aimerait bien que la chose continue jusqu'à à moment bien déterminé dans un contexte très très approprié ah, ñu xool heure bi comme c'est à vingt lañuy la ñu jéem a xool nuñ koy jéem a élargir par rapport ak euh, ndogu yi xew yooyu daal ñoom avec euh, les experts ak ses conseillers ñu xool heure bi nañ koy régler de telle enseigne que nit ñi dinañ mën a ndogu ñi war a quitter tamit yegg à à à ñeneen ñi tamit ñi war a xam. lu waay war a def daal mu def ko foofu daal lañuy ñaanaat président mu revoir buñ ci yeggee koor gi nan la ñuy harmoniser ba ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci jàmm ba pare jàngoro bi ci barki sëñ Fallou Mbacké yàlla na génn ci réew mi génn ci àdduna bi ñu delluwaat dans les meilleurs sentiments je vous